maa ngi seen benn maire ñu ngi yenu maire bi maire bi yenu sëriñam xaw ma ni ngeen wax ji wala de maire bi dañ koo yenu mu yenu sëriñam moom diwa bind yàlla mus ngeen ko dégg bi asamaan ak suuf amee ba léegi saaru système law daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñun ñu am talent ñu doon ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat nga xam ne daara ji day tàmbalee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu ni muy yombe mooy dañuy songu ab waqfu waqfu la ñuy taxawal lan mooy waqfu fu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yii lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme kenn na ko société indile bénéfice mhm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bi man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii ci bii kon mbokku jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyaam képp ko xam ne sa xool bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom da naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki danga nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk la soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala orangement Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak loo ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax 1000 francs dana bari ci moom amaana ab 500 la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeep bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii kon gaawal bokk boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko cee boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la alhamdulilahi rabbil alamin mbokki jullit yi noo ngi màggal allah taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal ñu suñuy njuumte jéggal nu sunuy rëcc-rëcc noo ngi julli tey selmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi di ko ñaanal jàmm moom ak i saxaabaam ak taabiciina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddiin mbokki julli di sunu xutba tey mi ngi tënku ci adraaru zunub wal maasi naam bàkkaar yu bari ak moy yàlla ana yan lor lay indil ab société waaye di ko indil kenn ku nekk ci nit ñi mbokki jullit yi xam ngeen ni bàkkaar gaaf la su bëree dana lor te ay dangem kenn mënut koo lim bokk na ci ay jeexitalam yu bon ak yiy lor lor bi muy lor xolu jullit bi yàq bi muy yàq jëmm doomu aadama bi fii ci àdduna ak allaaxira yàq googu bàkkaar di def ci jëmmi doomu aadama kenn mënu ko misaal bokk na ci lor yi muy indil doomu aadama ci rek bu dul woon li ko yàlla tere waaye lor yi mu lay indil yow nit bokk na ci xirmaanu rizq mbokk bàkkaar day tax yàlla xañ doomu aadama bi wërsëg maanaam ay bàkkaar yu bari dafay tuutal xéewal dafay tuutal wërsëg naka noonu ngay yëgee ni ndeke ragal yàlla day ubbi wërsëg day ubbil doomu aadama bi ay bunti xéewal léeg-léeg nag boo ko waxee ñi xamul dañu lay wax ni lan moo tax dëkku yéefar yi seeni dëkk développé avancé nga ni waaw loolu lu nekk la waaye xam nga yàlla subhaanahu wa taala dafa maandu ci ay jëfam maandu ci léppam yéefar yi nga xamante ni defaluñu yàlla lenn loo xam ne mën na leen jëriñ ci seen allaaxira yàlla da leen di defal ñoom lu leen di jëriñ fii ci seen adduna ndax àdduna moo leen tax a jóg su ngeen seetloo yéefari ci wàllu ut àdduna même ñun jullit ñi ci suñu bopp ni ñu waroon a mel ñoom dañu ko nangu ci ñun yéefar yi nga xam ne dañuy wër wërsëg doo ci fekk kuy biddanti jamono bu nekk ñu ngi xalaat ñu ngi liggéey ñu ngi doñ doñi comme ay mbaam lan moo tax parce que adduna la ñuy ut waaye yow mi nga xam ne jullit nga nga xam ne da ngay ñaan fi dunya xasana wa fil axirati xasana mooy yow yaa waroon gën a sonn ndax danga bëgg yiwal àdduna muy teraanga àdduna waaye bëgg teraanga àllaaxira kon yow mi bëgg ñaar yi yow yaa war a gën a mën a sonn ki bëgg kenn ki ndax ñoom yéefa yi góorgóorlu nañ ba li ñuy ut am nañ ko mooy seen àdduna lan la ñu amul mooy àllaaxira moo tax mborom bi subhanahu wa taala waxu yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ni soo gisee ab jaam yàlla di ko jox mu koy moy yàlla di ko yokkal lu muy misaal day misaal ni yéefar yi ni ñu mën a mooyee yàlla ni ñu weddee yàlla teewul yàlla di leen joxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu bu amee na ngeen xam ne istidraaj la istidraaj mooy yàlla dafay jox nit ki di ko mepp maanaam ni nappkat bi def pour am jën il faut mu ut tuuti jën def ko ci once bi sànni ci géej gi yeneen jën yi daw pour lekk jën booba loola mooy seen sababu ñëw loolu moom mooy istidraaj moo tax yonent bi ne fa innama huwa istidraaj borom bi taala ne ñoom yi faride ak ñi leen nuru bi ñu fàttee la ñu leen santoon mooy fa lamma nasu bi zukkiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay bi ñu fàttee jaami yàlla bileen yàlla santoon topp yàlla bi leen yàlla santoon ngëm gileen yàlla santoon yàlla ne mu ubbil leen ay bunti xéewal seeni bunti xéewal nag jural leen fàttaloo leen yàlla xattaa ida farihu bi ma uutu ñu dem ba jàpp ni àdduna bi ñoom ñoo ko moom lu leen neex def lu ñu bëgg am rekk borom bi neen axadnaahum baxtatan fa ida hum mublisuun yàlla nee na mu jàpp leen ci ak mbetteel bettee ay nattu yoo xamante ni mën naa dem ba fondoo leen kon mbokk yi bàkkaar dafay lor jëmmu doomu aadama bi su tasaaroo cim réew nag ba kenn ku nekk di ko def nañu yëg ni dañuy dund dund bu jafe moo tax ñaareelu mbir mi ci lor yi nga xam ni bakkaar da koy def mooy taasirul umuuri alal aasi ki nga xam ni day moy yàlla ay mbiram fu mu tollu dafay jafe nit ki nga xam ni jamono bu nekk mu liggéeyi te du am mu uti te du am kooku dañ ko naan toogaatal nga jàngat sa bopp nga xoolaat sa bopp ana lan moo sabab lu mel nii ndax sa digganteeg sa boroom yaa ngi koy toppatoo ndax li la yàlla sant yaa ngi koy def waaye ndax yaa ngi moytu lu xaram te xam ngeen ni mbokk yi loolu tey lu jafe la tey jullit ñu bari seen yoon ci lu xaraam nañu am rek la ñuy def waaye sàkkootuñ leneen da nga fekk te ñoom liggéeykat yoo xamante ni bu ñu lay liggéeyal dañuy fexe ñoom nu ñu la lekkee mais njub dootul nekk ci ñoom bu dee ci wàllu liggéey dañuy surfacturer la nga leen war a fay bu dee ci wàllu lu ñu lay utal ci ay marchandise wala bagage dañ la cay nax maanaam ñuy dund dundin woo xamante ne dundinu jën la te tey bu ngeen seetloo réew mi loolu la ñuy dund kenn ku nekk fa nga mën a ngàdd sa morom danga ko fay ngàdd fa nga mën a lekk sa morom da nga ko fay lekk donte bâtiment nga doon tabaxlu waxaaleeg moom temps lañ la war a fay pour nga tabax ko mais balaa ngay fay waa ji ci biir marchandise mi dana la ci facture loo xam ne mën naa ëpp la nga ko war a fay par exemple départ rez-de-chaussée jëm kaw nga waroon a fay nit ki 15 mu tabaxal la mën naa lekk ci yow benn 10 million avant 15 millions yooyu di ñëw 10 millions yooyu fan la koy lekkee mën na koo lekk ci ciment bi mën na koo lekk ci feer yi mën na koo lekk ci bant bi mën na koo lekk ci biir façon liggéeyam parce que day jàpp ni jamono bu nekk yow xamoo mën na laa nax loolu mooy li gën a tardeel ñu bëri bëri bëri parce que la ñuy am àndul ak barke. la ñuy lekk àndul ak barke loolu nag lu mu leen di indil mooy da leen di indil taasirul umur seeni mbir day jafe di nga gis borom moom ñeenti sànce wala juróomi sànce di liggéey waaye du yor xaalis ci loxoom waaye diw man daal sama loxo bi daa bënn effectivement yaa bënn sa loxo lan nga ko bënnee mooy da ngaa lekk lu lewut booy lekk lu lewul sa loxo day bënn sa loxo day bënn mooy dootee lu am barke parce que maxqul baraka bu yàlla génnee barke ci li ngay am munoo ci am nga gis koo xamante ni benn sànce la am wala liggéey su ndaw mu mën a am lu bari lan moo tax muy am lu bari parce que dafa moytu yàlla defal ko barke yàlla nañu yàlla defal barke ci suñuy ut moo tax borom bi ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib borom bi nee na ku ragal yàlla yàlla ubbil la ay buntu xéewalal foo ko foogewul woon waaye bokk na ci mbokk yi lor yi nga xam ni bàkkaar da koy def mooy ab attabu ala qalbi al aasi maanaam yàlla day linkaan xolu moykatu yàlla bi maanaam ki nga xam ni fu mu tool day bàkkaar jamono bu nekk xolam day naqari xol bi day fatt yaram bi day diis nopp bi day diis dootul dégg lu koy yokk ci diineem du ko nangu day gis ci nit ñi koo xamante ne bu Qur'an doon jàng fii léegi mu ne waay wàññi rajo bi waay wala boo doon jàng mu booy waxal ci suuf waay mais bu ñu tegoon musique ak tëgg fële lu mu yokk yokk du ko déranger lan moo tax parce que taba allahu ala qalbi yàlla dafa linkaañ xolam dootul dégg yàlla nee na yonent bi nee waaye lan lay dégg ki koy jay ki koy nax soo ñëwoon ne ko yonent bi lii la jàngale alquran lii la jàngale mën naa xulóog yow waaye mën ngaa ñëw ne ko diw lii la wax sëñ bi lii la wax donte lu wuteeg li yàlla wax loolaay gën a yomb ci moom lan moo tax parce que taba allahu ala qalbi yàlla moo fatt xolam fatt noppam fatt gëtam loolu mooy summum bukmun umi fahum laa yaqiluun dootuñu ànd ak xel donte nag la ñuy def coono biñ ciy am li muy rëy rëy rëy rëy yow nga di ko métitlu coono boobu moo leen di gënal benn diisaayu julli bu gàtt donte julli cinq minutes wallahi fecc trent minutes moo ko gënal julli cinq minutes mbokk yi ngeen xool tey nit ñi nan la ñu mel ci seen côté diine ay mag ay ndaw di fecc di tëgg di yenu ay bagaat yàlla sant la demal ca jàkka ja julli fajar demal ca jàkka ja julli tisbaar loolu metti ci yow nga dem ci sëriñ bi mu taxan loola yenu loola diggante àll ak àll nga di ko dox di ñakk ba pare ñëw di ko sant moom mbokk yi xool leen ma lu wëlbatiku lii nga xamante ne boo àndoon ak sa xel xalaat rek war ngaa xam ne li la yàlla sant gën a yomb jullee gën a yomb moo gën a oyof mais lan moo tax julli diis ci yow lu tax mu diis parce que yàlla moo linkaan sa xol parce que yaa sàgganee sa borom waaye boroom day dem ba nekk koo xam ni bàkkaar yi ni muy toqee ci xolam mooy dem ba xolam dootul nangu njub dootul gis njub moo tax borom bi ne kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun gis nga bàkkaar su ko nit kiy def xolu doomu aadama bi dañ koy misaal ab sër bu weex tàll wala mouchoir bu weex musuwaar bu bees tàq boo jëroon benn morceau Kleenex bu bees nga dugal ko ci néeg bu am ay yoo walla ay weñ tëj ko pendant trois jours boo ñëwee boo yëkkatee morceau Kleenex bi nooy fekk mu mel day xàll lan moo tax muy xal la mooy saw yi ci weñ yi saw yoo yi saw yiñ ci saw dox ment yi saw yiñ ci saw da ngay fekk mu changé noonu la bàkkaar mel borom bi ne na kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanoo yaksibuun gis nga nit buy bàkkaar saa bu defee benn bàkkaar rek tomb bu ñuul day takk ci xolam su ko tuubee mu daasu deñ su ko tuubul mu des ko su fekkee nit ki dafa bëri bàkkaar day dem a dem a dem ba parti xol bi lépp day mujj ñuul lépp day mujj lëndëm daray diine dootu ko saf waaye daray diine dootu ko neex mbokk yi bokk na ci lor bi nga xam ni nag bàkkaar ab société seeni bëri bàkkaar dana sabab lu mel noonu mooy jékki rek am tremblement de terre wala rek jékki rek tabia bi changé wala jékki rek mbënn ñëw jékki rek inondation ñëw saabu loolu amee ci ab dëkk war nañoo toog ñu waxtaan balaa ñuy dugg ci ay technique lan moo tax fii inondé pour quoi amul canalisation nangam nangam nangam et pourtant moyens yi ko waroon def mën na fee nekk mais yàlla leen koy fàttaloo lan moo tax parce que sababu seen bëri bàkkaar gis nga mbokk yi bàkkaar bu bëree ba ñu koy def jaharatan kenn dootu ko nëbb comme ni mu ñu dalee ci sunuy réew yi mbokk yi loolu bu xasee ba am rek bu yeboo nañu yëg nii ñu ngi dund fitna goo xamante ni yàlla rek moom moo xam fitna yooyu mbokk yi mbokk yi gis ngeen tey ab xeet bokk na ci li leen di lor saa bu ñu demee ba siiwal bàkkaar jiitu ca bokkaale nga xam ne kenn ku nekk nu la neex ngay bokkaale dañuy génne cëru yàlla ci lépp jël ay mbindeef jox leen la yàlla moomoon comme ni mu ñu dalee suñu réew suñu réew coobare mbokk yi kan lañ koy jox ñu néew ngay fekk ñu delloo yàlla coobare mu mel ni senegal yàlla amatu fi dara lan ngay dégg nit ñi di wax réew mi diw moo ko moom wala fii kii moo ko moom du ngeen ko dégg suñu réew mu nekk lu tasaaroo loo xam ne dañu koy way di ko bàkkoo loo xam ne dañu koy tëgg di ko feccee ay mag di ko def suñu réew mbokk yi àgg nañ ci ba taw ñu jël ko jox ko ay mbindeef moo tax benn waaye bërki dem bi mu nee taw nangam naa ma ne ah bu leen wax dara nag yéen ko moom ndax yéen yéen di woy taw mu taw kon comme moo fa taw fexe leen régler taw bi mbokk yi dafa am bàkkaar yoo xam ni ñu mel ni ñun lan moo tax ñuy sonn mooy jamono boo buggee jubbanti ab société fitna ñëw na nattu ñëw lan mooy fitna na nattu ñëw la daan dal yonent yi moo lay xaar feeg ngay xippi bëtu nit ñi ñu xalaat mooy bu ñu demee ba jël coobare yàlla nangu ko ba jël moomeelu yàlla nangu ko ba jël nguuru yàlla sax ba àgg ci ni fii ku fi am dara di wala ko jox ba àgg ci ni fii ku fi falu di walay fal ba àgg ci ni diw moo moom nangam jaam ñi mën a ñemee wax di way borom jaam ni te lépp doo ci dégg yàlla di way borom jaam ñi mbokk yi jàpp naa ñun ñëpp ñu ngi koy dégg ñu dem ba loolu tasaaroo ay góor di ko feccee ay jigéen di ko feccee ñu koy wayee di ko caaxaanee mooy siiwal nañu bàkkaar yemut ca njabar ñu jël njabar mu nekk ci sunuy bunt nga xamante ne layla nahaar góor jigéen njabar la ñuy def di bokkaale borom bi guddi ak bëccëg mbokk yi bu loolu amee borom bi subhanahu wa taala daf ñu wax ci alquran ci suratul anbiya mu ne wa nabluukum bi charri wal xayr fitna yàlla nee na léeg-léeg dinaa leen nattoo ay musiba léeg-léeg ma nattoo leen yiw waaye loolu lépp fitna la lu tax wa ilayna turjaun ci man ngeen di dellu borom bi waxaat wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum borom bi nee na lu leen dal ci nattu toog leen àgg suuf xalaat leen ku nekk na joxoñ boppam ñun tey foofu lañu ñu toll Sénégal dañoo war a toll ci toog xalaat ku nekk na ne lii ñu dal ci suñu réew ñun la ñun la ndax bi ñu jëlee lu fàddu jox ko ay mbindeef jël moomeelu yàlla jox ko ay mbindeef jël ay mbindeef jox leen lu yàlla moomul yàlla daal lenn rekk la ko waa senegaal di jox mooy bu nattu amee cëy yàlla loo rek bu neexee diw la soo lekkee sa ceeb ba suur diwa ko niinal soo naanee sa boisson diwa ko seddal soo doxee diwa yor jàmm diway maye jàmm bu fitna ñëwee ba lii ñu dal dal ñu ci yàlla rek ngay dëkk yàlla ko dogal de yàlla ko nangam yàlla ko nangam kon dañuy toog ba yàlla koŋ ñu ñu doog xam te borom bi loolu mooy jubluwaayam ndax zahara al fi l barri wal bahri bima kasabat aydi nnas li yudiqahum baada alladi amilu yàq bi ngeen yàq kaw suuf caaxaan bi ngeen dëkkee mooy bi ngeen dëkkee moo tax yàlla nee na ma leen di ñamal léeg-léeg inondation am ñi dëkk ci kër yi kër yi daanu kenn du am foo dem ñu dëkk mbott yeeg yooyu comme na mu ñu daan dalee ci at yu njëkk ya su boobaa ña toll la ca bërëb boobu ndax seen xel mi ngi xalaat wallahi daaw jéeg maa ngi koy nettal nettal naa ko ci benn xutba côté Kër Massar ci côté <coughs> cité defe naa mooy ñuy garde euh, kii kaso yi maa ngi fàtte tur bi pénitence ndox da ko nangu woon nangu bu metti ñu ñëw woon foofu may seetaan toog xool kër yi ndox nangu ko ñu ñi nekk ci jafe-jafe maa ngi seen benn maire ñu ngi yenu maire bi maire bi yenu sëriñëm xaw ma ngeen wax ji wala de maire bi dañ koo yenu mu yenu sëriñam moom photo sëriñ bi la maire bi def nii walla ñu teg ko ci sanet bi nii di ko yóbbu muy def nii ma ne xoola meer bi kat kat gi muy def coono gi muy def nii xoola ci ndox mu mel nii mais moom na ñëpp tooy ba mu def sëñ bi mu sëñ bi tooy na ñëpp tooy xoola ngëm kii fi mu àgg tey boo ko doon delloo ci yàlla nan ngay def nit ñi yenu ko xëcc ko ba indi ko mais moom daal photo bi daal moom nee na photo bi du tooy mukk te effectivement photo bi tooyul kon foofa sëriñam àgg ci moom waaye yow miy jaamu yàlla yow sa borom fan la war a àgg ci yow ñaareel bi kii di wax ni nga xamante ne kii la naw ba teg ko fii ki la naw ba teg ko fii ak ki indi lii kan moo ci mën te sax loolu sax laaj ko musiba la kon mbokk yi loolu bu ñu dalee nañu yëg nii lu ne mën nañoo dal mbokk yi gis nga nattu mën naa dem a dem ba ngelaw li ngay noyyi benn épidémie am te épidémie boobu dara du ko indi lu dul bokkaale bu bari dara du ko indi lu dul mooy yàlla gu bari dara du ko indi lu dul njaaloo gu bari dara du ko indi lu dul ngóor jigéen gu bari dem ba lu nit def am ca sañ-sañ boo waxee mun a soo yoon nekku ci maandul ci man léegi lan mooy dox ci dëkk bi suñuy état ñëpp da nga de kenn ku naan ku nekk daal na nga nekk ca la nga nekk rek waaye bu kenn fa bu kenn bu kenn dugg ci fi jàmbur même sax boo nee lii yàlla bugg ko ñu ne ma ngay tooñ te fekk yow mi naan lii yàlla bëgg ko yow yaa nekk le sauveur yaa ngi sauvé ñi nga xamante ni dañoo waroon a dégg lii ngir ñu xalaatee ca kon loola mooy taxawaayu islaam mbokk yi beneen bi mbokk yi ñu yëg ni ginnaaw loolu bu amee bu ñu yeddee suñu bopp fan lañu war a dellu mooy ñu dellu ci yàlla tuub ci suñuy bàkkaar wallahi ndox mi li muy bari bari bari bari suñu àndoon tuub yàlla delloo ko alal akaami wa darib yàlla mën na koo delloo fa mu jóge woon wallahi ladi laa ilaha gayru waaye bu ñu sàgganee am suñu dëgër bopp nekk ci lu ñu nekk dañuy dind fitna ren déwén ñu dundaat fitna moo tax li war a am amul li war a am mooy ak lu moyee am am am dellu ci yàlla mooy première chose léegi naa ñu ne am na ministre boo xam ni dépensé na nangam def na ko ci affaire bi dimbale na nit ñi nangam waaw loolu feeg mi ngi ànd ak ñu koy jël te ànduñu ak dellu ci yàlla mooy la amoon moom mooy amaat mbokk jullit bokk na ci bàkkaar lor yi nga xamante ni dana ko indil ab société li tàmbalee ci kenn ba ti ñaar mooy dana jeexatal ci xolu doomu aadama ba borom bi dootul am yërmande nit ki day dem ba xol bi yërmande dootu ci nekk dañuy dem ba rey foowukaay lay nekk ci ñun te xam ngeen ni jamono yi loolu lañuy dund Sénégal maa min yawmin wala min waqtin lu dul dégg nga am na ku ñu rey am na ku ñu agressé am na ku ñu rendi am na ku ñu daggate nit ñi dañuy dem ba dañuy mel ni ay ay ay ay bahaim affaire animosité mooy dox ci biir nit ñi ñaari baat rey na ko rendi na ko daggate na ko loolu ngay dégg rey na ko rend na ko daggati na ko loolu ngay dégg lan moo koy sabab <coughs> mooy mooy yàlla bu tasaaroo xolu doomu aadama bi yërmande dootu ci nekk papa dootul yërëm doom yaay dootul yërëm doom doom dootul yërëm yaay rakk ak mag dootuñ juboo kër goo dugg fitna guddeeg bëccëg te wallaahi jàngat leen li ngeen xool ko ci biir kër yi ndax juboo am na ña nga xam ni démb ñoo waroon nekk benn tey ñoo gën a noonoo ñaar ñu bokk benn biir kenn ku nekk yéene sa moroom dee ñaar ñu bokk benn biir nga mën a waxtaan ak nit mu naan la diw sama mag la waaye sama rakk la waaye ku nangam la xoola yow mi muy delloo di la wax mbonuk magam su baax ne woon ci moom mbonuk magam doo ko yëg yow mais nit ñi dañuy àgg ci mbon foo xamante ni jigéen dootul bëgg moroomam ñaari jigéen di wujje kenn ku nekk di fexe noo posone sa morom ndax seytaane moo lay jàpp-jàpp ba dootoo am benn tiit da ngay fàtte jàpp nga ni kii mi ngi lay xañ sa teraanga fekk yaa koy xañ sa bopp bu nu àggee foofu mbokk yi mooy yërmande dafay jeex su yërmande jeexee nag mooy nit dootu fu nekk mais ay bahima ñoom ñoo fi nekk ñeenteel bi bokk na ci lor yi nga xamante ni bàkkaar dana ko indi mooy al ixtilaafu wa tamadduq mooy dañuy wuute dootuñu ànd ci daara dara dara daara dara tey problème bi gën a posé wu Sénégal léeg-léeg damay dégg nit da koy wax damay reetaan nañ leen fexe ñu nekk benn gis ki koy wax dafa taxaw fee di ko wax ndax def na action buy tax ñu nekk benn wax ji rek du ko def mais kenn ku nekk ci ñun booy ñëw sa mbubbu da koy wékk ci sa néeg sa mbubbu jikko la nga gëm wékk ko fa nga bëgg ñëw ñu ànd nan la ñu àndee diine ji du ñu mën a ànd du ñu mën a nekk benn xam nga dafa dul du neex di wax léeg boo waxee ñu ne diw dafa tàng waxiinam dafa xaw a kii mais gis nga pour jullit ñi ànd lenn dong ko mën mooy tawhid ku la gëm loo ni nañu ànd ci lii lële ku nekk dem ak sa bopp du ñu ànd loo loolu qaayida buy nax nit la pour ñu ànd lenn dong la mooy li yàlla waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam law anfaqta ma fi ard maa allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum yàlla moo tàppe xol yi nan la ko tàppee mooy bi ñëpp amee tawhid gëm yàlla rek dañuy bëggante kon tawhid moo ñu mën a boole waaye bu ñu nekkee fii kenn ku ne am na kër gooy dellu ku ne am na kër gooy dellu nan la ñu mun a àndee parce que bu ñu àndee man en tant que man ma nekk jullit war a woote woo jullit woote wootuma jullit mais léegi ngëm-ngëm gu mujj gi laay woote woo yow nga woote woo kee woote woo ko mais du ñu ànd du mënuñu ànd kon lu mel noonu day indi ixtilaaf waaye day indi tamazzuq tamazzuq bi muy jur nag mooy kenn ku nekk sa sa pas-pas dalay gënal bu sa morom kenn ku nekk ni ngay défendre sa pas-pas maanaam ci bu mu ko bëggoon comprendre loo nit ñi mooy ni ngay ni nit ñi di défendre seeni tariqa défendre wuñ ko diine yàlla ji amul Sénégal tariqa yi la ñu gëm li ëpp ci nit tey billaahi boo génnoon jël rajo bi saaga yonent bi du doon benn problème site kenn du la toppatoo kenn du la lijjanti parce que yonent bi amu fi bàjjen nag amu ko fi dëgg-dëgg boo saaga woon yàlla kenn du yëngu waaye tuddal benn sëriñ waxuma sax nga tudd ko de gam-gamle ko ak lenn rek nga xool gam-gamle ko ak lenn rek nga xool mbokk yi Cheikh Oumar Diagne bërki démb dafay wax benn wax da dëkk bëgg a tàkk ñëpp di coow kul kul ku nekk nangam nangam nangam nangam nangam mais liñ fi wax Sénégal liñ fiy wax yàlla di ko wax ci yonent amul benn dëkk ci kaw suuf bu ñu koy wax laa wax te loolu wallahi lancé naa defi ku ma génneel beneen dëkk bu ñuy wax li ñuy wax Sénégal yàlla rek loo bëgg ma jox la ko suma ma ko amee aca ñu dem Sénégal loo fiy dégg diwa bind yàlla mus ngeen ko dégg bi asamaan ak suuf amee ba léegi benn ci dëkk yi gën a bon nga dégg kenn ku taxaw ne yàlla diw ko bind diw moo ko bind loolu rek doy na misaal doy na misaal léeg-léeg nga gis kenn koo xam ne waxuma la sax Sénégal ngay fekk ñu jël julli sànni sa ginnaaw jël woor sànni sa ginnaaw ba pare bëgg a bokk ci sàppees jullit ñi kon loolu fi mu ñuy yóbbu mbokk moom mooy pour ñu ànd du mun a nekk du yomb ndax il faut ma bàyyi la ma gëm nga bàyyi la nga gëm pour ñu ànd jaraluma la nga bàyyi jaraloo ma ma bàyyi nan la ñuy àndee mooy dañuy maslaa rek li alquran wax taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta da nga leen di gis ñu ànd pour benn problème mais jubawuñ de coow li ñu ko coowee ci Cheikh Oumar Diagne am na ku ma ci waxtaanal mu ne ah gars de dañuy ànd xeex ma ne ko waaw loolu mooy dëgg mooy li borom bokkoon ci naafeq yi gis nga naafeq yi bu benn problème amee ñëppay ànd bu jeexee ku nekk toog di xas sa moroom noonu la ñu dëkkee de mën nañoo ànd léegi sitting fii coow xuloo kaas ànd nangam nangam bu ñu paree ku ne dellu këram ah waaye diw de <laughs> sëñ bi du moromam sama sëriñ du moromam sama kilifa du moromam te pourtant bu ñu taxawee ku ne wax ko du ñu ànd mais du ñu koy nëbb parce que benn objectif la ñu am loolu nag melokaan woowu ay bàkkaar yu bari moo koy sabab cim réew mbokk jullit ñi bokk na ci bàkkaar yi day tax jaam bi nekk ku doyadi ku xeebu moom day toog bay yërëm boppam mbokk nit bu demee bay yërëm boppam rek na xam ne yaa quelque problème mooy dana toog di yëg ni am na bàkkaar bu muy def bëgg na ko bàyyi mais munu koo bàyyi bëgg na ko bàyyi mais munu koo bàyyi wallahi ndeysaan léeg-léeg nit woo ma ne mu oustaz man tey bàkkaar sàngam dama ko oustaz eh, dimbale ma mu bàyyi ko man daf may jaaxal man man nan laay def ndax yaakaar bi mu am ci man ba wax ma léegi man en tant man nan laa war def ba kii bàyyi bàkkaar bi wallahi ladi laa ilaha gayru amul semaine nit toog na sama place di wax ak man di jooy ba ba muy ñibbi añee sama place bay ñibbi xaw ma nu may def rek ci benn bàkkaar bu ko jaaxal boo xamante ni leer na ko ni bugg ko te man xam naa ni moom muy wax buggul bàkkaar bi mais lu tax munu koo bàyyi où est problème lan moo tax mënu koo bàyyi kon mbokk xoolal fi la yàlla toll rek fi nga toll yàlla di nga xam fi la yàlla toll boo gisee ku ne jullit la ku bëgg a baax bëgg a tekki dàq biddanti ci koñ bi waxul dëgg ki dàq biddanti mënta gën a tekki ci koñ bi mënul nekk danga nga bëgg àdduna bu avancé danga nga bëgg àdduna bu neex nga bëgg am am mën a nelaw foo toll ñaanal ma ma dem Europe dama bëgg tukki dama bëgg am yow quatre sax mënoo koo yeew waaw ku mënta yeewu quatre lu muy uti Europe Europe nga xam ne tubaab bi trois heures du matin la ñuy jóg foofu ku liggéeyul doo lekk ku liggéeyul doo naan moo tax bi ñëpp jógee ñu bari dem te du nelaw ki feñaagoon fii bu demee fële du fa jëriñ dara kon soo bëggee teraangay àdduna dangay jaamu sa borom waaye nga nangoo liggéey mbokk jullit ñi ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu mu delloo sil ñu sunuy xel ba ñu xam ni bëggante rek mooy li ñu war waaye jaamu yàlla moo ñu fi indi borom bi ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni yàlla nee na binduma nit binduma jinne lu dul ñu jaamu mbokk yi ñu góor góor lu bàyyi bokkaale waaye bàyyi bidaa bokkaale nag ñu bari xam nañ ko problème bidaa lañu am li ñu indil problème bidaa mooy kersa gu bari ci sunuy mag parce que lañu waroon jox saxaaba yi jox ko yonante bi lañ ko foqati jox ko suñuy mag loolu moo tax baatu bidaa boo ko tuddee sonal ñu baree baree baree bare bidaa boo ko tuddee rek sonal ñu baree baree baree bare jànkat yu bari dañuy dem ba dañuy am lënt seen diggante ak bidaa lan moo tax ñu koy am parce que bugguñu wax lu laal keneen te boo buggee leeral bidaa laal yax bi il faut nga laal ay mag léegi nag maa ngi lay jox benn règle xoolal mag ñi fi nga leen teg ndax ñoo mag mag ma waaw loolu ngay xool ba pare ñii mag lañ moo tax nga naw leen fan la alhamdu yal yàlla dëgëral leen yërëm leen ndax yeyoo nañ ko waaye nag ñoom it ndax amul woon ñu leen mag ñoom nan lañu meloon ci seeni mag xool ko rek am na benn waaye bu sant bi ñu ci toogee maag moom débat daaw tax ba caag ma ne oustaz neexul ba neexul ku dëgër bopp nga ndax bi mënee diw nangam nangam ma ne ko ah ñemewoo ma génnal kii ko jàngale te xanaa jógewul ci asamaan rek am xam-xam Sénégal fii koo fiy tudd dañ koo jàngal waaye yéen rek laa dégg seen sëriñ kenn ñemewul wax ku ko jàngal moom daal dafa mel daal jibril la ñëw rek sol ko allahumma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadillu man walayt wala yaiddu man aadeet tabaarakta rabbana wa taaleet ñoo ngi ñaan borom bi subhanahu sunu wóllëre bu baax ma yàlla na ko yàlla xaare ajjana yàlla na yàlla defal ko firdawsul aala imaam alin Badara ndaw yàlla na yàlla jéggal ko ay rëcc-rëccam naal yi mu naal ak tabax ji mu tabax yàlla na yàlla dëgëral ko ba mel ni bâtiment yàlla na yàlla def ko muy meññ di meññ di meññ waxtu wu meññee rek yokku te lu muy gën di yokk jëm ci mii daanu xasanaatam noo ngi ñaanal yàlla waa daara ji yal yàlla teg ci ñoom loxoom yal na yàlla dëgëral leen njaboot gi mu fi bàyyi yal yàlla dëgëral leen yal na yàlla def leen ay saalihiin ak saalihaat yal na yàlla def leen ñu nekk ñu jub bay jubale yal leen yàlla boole ca way jubale mbooleem ñi nekk ci daara jeeg daara yi di ko saytu yal yàlla dëgëral leen waaye mboolem ku julleeti fii yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla defal ñu fi duniyaa xasana wa fil axirati xasana yal na yàlla fegal ñu mbugalum bàmmeel yal na yàlla fegal ñu toroxtaange yowmal qiyaama yal na yàlla boole ñu ak yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak imaam Alioune Badara Ndao ak njabootam ca àjjana yal nañu toog ci àjjana di ko waxtaanee lu ko yomb wa ma dalika ala llahi bi aziz qumu ila salatikum yaxfiru llahu li wa lakum wa saari muslimina fastaxfiruh innahu wal gafuru rahim saaru système law daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñun moom ñu am talent la ñu ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat nga xam ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu ni muy yombe mooy dañuy songu ab waqfu waqfu la ñuy taxawal lan mooy waqfu fu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te mu njariñ man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqf loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme keneen nag ko société mbay indile bénéfice mhm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bi man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii ci bii kon mbokku jullit yi yoon a ngi nii bunt a ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyaam képp ko xam ne sa xool bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom da naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki danga nga dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala Orange Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak loo ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax 1000 francs dana bari ci moom amaana ab 500 la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii kon gaawal boo boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko cee boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la qul ma inda allahi xayrun min allahi wa min attijaa